malheureusement euh, li ni mel euh, mujjul am moom la président américain accordé wul boobile boobile rencontre ki nga xam ne mooy chef de l'état euh, du Sénégal ki nga xam ne moom mooy Juan Branco daal dina wax ne acte anti démocratique yi nga xam ni régime en place mi ngi koy daal di posé maanaam moom la daal di teg moo waral boobile audience amul loolu nag ñoo xam le mooy que l'avocat Ousmane Sonko waaye itam ba léegi rek mi ngi affirmer que Sénégal désormais désormais euh, blacklist la daal euh, nekk ci euh, dëkk yu nekk maanaam comme genre liste noire rek lañ leen di daal di dugal ba tax na moom président Macky Sall comme ni mu ko a tantôt moo daal di annoncé woon que ni dina daal di gisante que le président Joe Biden à la Maison Blanche malheureusement loolu li mujjul am ginnaaw démarche yu bëri yi nga xam ni daal dinañ koy def rek ngir rencontre boobu lee am malheureusement loolu lee amul moom na Juan Branco mi ngi xamle que ne président Macky Sall ak ay ñooñam maanaam ña nga xam ne ñoom la daal di lëkkaloo il faut que ñu comprendre que ni crime yi nga xam ne euh, teg nañ ko wala crime yi nga xam ni euh, def nañ ko jamono ji nag moom moo leen tax euh, ñu daal di leen di écarter ci nit ñi te lii nii dafay dem mën naa ne mën na nekk loo xam ne lu wéy la daal di doon ak détention Ousmane Sonko ak tentative yi nga xam ne ñu ngi koy def ngir rajjee ko maanaam ngir mu bañ a bokkati ci élection yi loolu dafay gën a aggraver li nga xam ne moom moom mooy seen ay euh, conditions loolu nag ki ko xamle du kenn ko dul Juan Branco ba tax na sax mi ngi xamle que ne euh, allié wu président Macky Sall ñoom nag war nañoo comprendre que ne euh, bëri na ci ay territoire yoo xam ne mën nañ dem sax ba bés ñu daal di leen koy interdire loolu nag moom moo ko daal di xamle suñu continuer di persécuter ci askanu Sénégal waaye tamit arrêté li nga xam ne moom mooy maanaam arrestation yi ñu daal di koy arrêté arrestation arbitraire nga xam ne nemmeeku euh, nañ ko ci waaye nag bés buñ ko deful rek mën naa ne euh, dinañ leen teg ci seen yaay kanamu responsabilité loolu nag Juan moo ko daal di xamle ba tax na sax ma ngay mel ni kuy menacer euh, fonctionnaire yeeg magistrat sénégalais yi naan leen kenn ku nekk rek jàppal ne prévenir nañ la maanaam yow waajal nañ la bu baax a baax te boo continuer di avancer ci mbir mi la da leen di gën a faciliter li nga xam ne moom mooy seen liggéey maanaam collecté ay éléments yoo xam ne euh, dina tax ñu mën leen a condamné euh, ndiki euh, ëllëg loolu nag Juan Branco moo ko daal di xamle xam naa dafay def clin d'œil foofu noonu ca CPI bi nga xam ne fa la yóbbu suñu autorité sénégalaise yi xam naa moo tax mu daal di wax li ni mel ne leen bis boo leen continuer aussi tamit da nga leen di gën a faciliter données yi nga xam ne ña ngi koy collecté éléments yi nga xam ña ngi koy collecté rek ngir yóbbu ko foofu noonu ca CPI bu ñu jógee foofu ci wàllu sonkorisation bi nga xam ne. Euh, nemmeeku nañ ko foofu noonu ca New York te ñu daal di koy def ki nga xam ne euh, moom mooy euh, président may ki Sall waaye nag gis nañ ne ki nga xam ne moom mooy lak rakkam di Aliou sàll mbir mi neexu ko benn yoon nax nee na moom sax buggut wax ci parti bi nga xam nañ ko daal di dissoudre maanaam parti boo xam ne jamono ji existé tul muy Pastef moom naka nee na du bëgg wax ci ñooñule waaye nag mënul comprendre benn yoon violence yi nga xam ne euh, ñu ngi koy def ak vulgarité bi nga xam ne ak insulte yi nga xam ne aussi euh, ñu ngi koy daal di euh, nemmeeku ci ma Sénégal communication yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def alors que ay idée la ñu waroon a génne waaye nag ba léegi moom Aliou Sall yamul ca loolu le ma ngay wax que ni rawatina fa nga xam ne fa lañ ko defee mu nekk un pays étranger mu nekk pays boo xam ne amaana waruñu woon a nekk foofu la ndax nee na sénégalais bu nekk rek yow yaa war sa ambassadeuru euh, réew mi pas di euh, divulguer wala pas di euh, wane loo xam ne rek mën naa ne lu négatif lay doon parce que yow sa métier wala sa rôle lenn la woon rek mooy que di wane ay aspects yu positif mais pas di inciter wala pas di insité ci mbir yoo xam ne dafay diviser loolu nag ki nga xam ne moom mooy Aliou Sall moo ko daal di xamle foofu noonu ca Walf ba tax na sax mi ngi xamle que ni dafay daal di ridicule suñ ne président Macky ab dictateur dictateur la alors que alors que fii nii ci réew réewum Sénégal alors que moom moo choisir euh, maanaam bañ a doon li nga xam ne moom mooy candidat bañ a def euh, troisième euh, mandat loolu ab dictateur mënu ko waaye tamit mi nga xam le que ne suñu déggee ñu ne liberté amul ci réew Sénégal alors que nit ñi ñaa ngay wax ku nekk rek yaa ngay wax ak ca forme boo ko mënta waxee kon foofu noonu buñ ne dicta buñ ne président Macky Sall loolu ay waxi kase la te tamit dafay gën a ridiculiser li nga xam ne moom mooy euh, sénégalais yi te tamit di xamle euh, que ne euh, dirigeant maanaam. ñi nga xam ne ñoom ñooy wax loolu leneen jàpp ne ay farce dong la ñuy wax mais euh, président Macky Sall nekkul ab dictateur parce que su ko nekkoon li yëpp rek euh, du du ko daal di def maanaam du euh, renoncer à sa troisième candidature waaye tamit du bàyyi nit ñi rek ñuy nekk di wax lu leen neex waaye tamit di àddu jëm ci li nga xam ne moom moo ñongal li nga xam ne moom mooy seen réew fi la ñuy daal di wàcce suñu ay kàddu dina jaajëfal bu baax a baax. di leen joxaat dig daje ndiki ci kanam tuuti ak yeneen i information waaye nag bu leen fàtte à chaque fois di abonné sur 313 digital